nga ko états-unis am lu xew sa ginnaaw mhm. sa rak mhm. sa xarit sa doomu nday zebba la junior mhm. ma jël ko émission mu ne ma am ma ne ko am mu ne ma Aliou Mané bu yoron ay million moy fajj faj far yalla suñu borom def lu gën ba nga yëlee ba nga yëgee nouvelle bobu ay dañu sant yalla nak quoi ah dañu sant yalla bu baax a baax a baax a baax ndax jàmm ndax man xam nga rek foofu mënu ma si wax tamit quoi lu bëri ndax foofu su ma si waxee rek sama xol day tooy quoi ndax ci Balla Junior dafa nekk suma rak mun naa suma suma doom la quoi waaw kooku suma doom la kooku dama bëggal boppam ndax tey kooku da mun naa dama doon solonte moom sax yére ndax tey li ñuy wax rek yaay sori na si doom mais kook sori woon na si man man kooku mun naa sama doom la ndax tey lu olof njaay di wax rek soo sa doom danga koy boot roganti ko man kook noonu laa ko defoon quoi ndax kooku dama ko xamal dama ko xamal yàlla xamal yàlla bi mooy lan mu ko gëmloo boppam ba pare gëmloo ko diine ndax tey dem na ba am na ay dafa am kersa si doomu aadama pour mu wax nag siggi xool doomu aadama dafa yéeme dama am combat mu ñëw sama combat maag suñeta may takk ngemb maag moo julo mu ngi nii du ma bàyyi ma fen mhm. ñu doon takk sama ngemb si lañ bokk mhm, waaw moog booy jil bu may takk ngemb mu xool ma ma xool ko mu sëgg man ko lan la mu ne ma sama tànk day metti su ngay taxee ngemb su may taxee seen ngemb sama biir nekk après mu génn mu ne maa ngi dem gàlla changé après ñëw lamb ja après fa la la bàyyee foofu dem dem changé ma ñëw échat mu fekk ma biir échat toog si sama cumbukaay mënul taxaw tëdd sama cumbukaay su ma suma cumbukaay bi su ma doxantoo tuuti ñëw fekkoo naka yooyu eh, champion yooyu mu ne ma mag ji rii ko ma ne ko waaye mbër ah tey day baax de mu ne ma wooy non champion sa xol dafa rafet ndeysaan par la suite ma bëre combat bi ñàkk bu ma ñàkkee combat bi ñu def une semaine mu woo ma téléphone na ma réew ko mu ne waaw ma ne la ma sama tànk yi ñooy met ma jógee foofu dam këram. ma waaw bu ma demee këram fekkoo feebar bu daaneel ko bu ko feebar di daaneel ne nag ñu discuter ci yu bëri man ñaanal ko dem ñibbiwaat bu ma ñibbee. une semaine ma ñëwaat këram ma fekk feebar bi duñ ko daanal. ma def li ma war a def mooy li ma tax lépp si yàlla suñu borom laa koy teg ma ñaanal ko yàlla. ba pare yóbbu ko si ay kilifa. ndax mooy li ma tax man yoruma. ndax su kon li mu wax rek man su ma yoroon man maa koy faj. ndax man sama doom la. man xam naa li may wax bu baax. mu si dëgg maa ngi si fen xam naa xam naa jëmm jooju. ndax tey kooku mooy li ma lay wax rek wàllu wàllu la. ndax nit ki boko ko nga koy xam rek mo la ginaaw mais jëm jooju dama ko xam kon sama loxo bi ma ma talal ni moom sax ci biiru wax doon na wax naan Aliou Mané ba mu nekké fi mo waroon boot di ma génnee di wax dal yu bari bari ci yow. ndax so déggee ma la nday moy boot doomam Abdoulaye sama dom la Abdoulaye dama ko don boot du ko yobbi ci ci ay maam mën damay tal scooter tek ko ci suma ma touti su defee moto bi defee zigzag mu yuuxu après damay jooy. su ñu ngay dawal moto bi yëpp barki yonent bi damay jooy. damay jooy ma xam ne kii moo ngi mu ngi yëg lu metti su ma demee def lu ñuy def ba pare ma bootaat ko indiwaat ko seen biir dama dama ko doon boot yéegee moom troisième étage. li may wax nii xaritam xam na bu baax Souran. waaw Souran. Souran xam na lu baax la may wax. doomu waaw man moo Souran Souran mooy taal extérieur ma taal extérieur man maay boot Abiboulaye yóbbu yéeg ak moom troisième étage. nga jógee premier dama koy boot. moom xam na bu baax man xam na Abiboulaye da bu mu bu mu wanee dama jooy ñetti une semaine laa jooy. une semaine barki yonent bi. bu ñu bàyyee xel yaa ngi dugg si benn émission làmb waaw doon woote ñu eggale émission ñu ndax kooku dafa sori si man mhm. ndax soo déggee moo ngi def émission boobu dama yor groupe whatsapp bu muy gaañu si une semaine dafa ma woo téléphone maa ngi états ma maa ngi Boston avant oh, muy ah, gaañu une semaine la ma woo téléphone mhm. na ma réew mun a mun a ma dama bëgg nga ñaanal ma ndax feebar bi daf ma gën a sonal mhm. guddi googu bi dugg sama groupe whatsapp nee na sama gars yi ñu ne man leen dama bugg ngeen ñaanal Abibou Laye yàlla suñu borom may ko tan si ngeen def seen émission boobu noonu. ngeen envoyé ma émission bi. ma dugal émission bi sama groupe WhatsApp sama groupe WhatsApp ñëpp jooy. def ket. samay gars yi nekk si Europe yëpp def ket ñu dajale muunuñ boobu. muunuñ boobu bu ñu dem la Abibou Laye woon ginnaaw. ndeysaan avant xaalis bee dem. Ah. Abibou Laye woon la ginnaaw. Abibou Laye woon ñu ginnaaw. ndeysaan. waaw kon da ngay xam ne. yàlla suñu borom. moom mooy lépp. yàlla suñu borom moom mooy lépp. te Abou Bilay man gëm naa ne yàlla suñu borom dugal na ko àjjana. ndax taw tey boo déggee si émission am lan la wax. Aliou Mané bu ay millions mooy waaw for nañ si weewu béy tamit. Aliou Mané. Mm-hmm. waaw dama nekk bul faale. Mm-hmm. mu bëggal ma boppam day ànd ak Ama Balde ñoom ñaar ay gaañ lañ diggante Ama Ama Balde ak Abibulaay ne si doomu aadama di wax lu rafet.